wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mboy nu di ñaan yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem barab bi nga xam ne ci la daje ak ci waxtu wi ak ci bis bu màgg bi lépp loo xam ne def nañ ko fi muy ay jaamu yàlla nañ ko subhaanahu wa taala fayal def ko suñ misaanul xasanaat tey mu doon suñu njéggal fii ak fanu jëm yàlla subhaanahu wa dafa am ay bis am ay waxtu am ay jamono am ay nit yoo xam ne yu ci nekk def na ci mbiram ay def na ca loola yërmandeem taw féexam njéggalam képp koo xam ne yaa ngi wër njéggal suñu borom tabaaraka di wër taw féexam des na ko dàq ci bis yu mel nii mel bis ajjuma ca bërëb yu mel nii des na ko dàkk tamit ci ay jamono des na ko dàkk tamit ci ay doomu aadama yoo xam ne yàlla subhaana moo leen tànn kon nag ajuma bis la boo xam ne bis bu màgg la ci jullit ñi nga xam ne saabu bu dikkee war nañ koo waajal waajin wu rafet teel dem jumaa ji ànd fa ak sell ak teewlu toroxlu ci kanam subhaanahu wa taala di ko ñaan di ko bakk di ko jiggalu ndax moom rek moo yor lépp qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum kon day mel kon yàlla subhanahu wa taala lim bëgg mooy nit ñi waxtu wu ci nekk di toroxlu ci moom di toroxlu ci moom amman yujibu lmutarra ida daahu wa yakshifu suua wa yajcalukum xulafaa al ard a ilahum ma allah qalilan ma tadakkaruun ki nga xam ne sax dem na ba nga xamee ni mm, amul fenn fu mu jëm kenn rek la yaakaar ñaan ko muy yàlla subhanahu wa kon nit ki te yàlla wax ne inna rabbi qaribu mujib uduuni astajib lakum woo leen ma ma wuyu leen ñaan leen ma ma may leen ndax yàlla kat ku jege la waaye googu mu jege képp ku ko woo dina la wuyu kon nag waxtu wu ci nekk ci waxtu yi ci jamono yii ci guddi yi ci bëccëg yi nañuy toroxlu ci kanamam di ko ñaan di ko muslu di aaru ci moom ndax na ko Sëriñ Tuubaa waxee ne an nafa wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani njëriñ ak lor moom kenn yoru ko ku yàlla subhaanahu wa taala <clears throat> yàlla rek moo ko yor waaye tamit nekkul ci loxo doomu aadama ndax bu nekkoon ci loxo doomu aadama doomu aadama yu bëri tey ñu ngi ci biir suuf doomu aadama yu bari tey seen dund yàqu na waaye dafa nekkul seen loxo te am na ñoo xam ne jamono ju nekk ñi ngi wax ak jëf ak meloo noo xam ne ngir soxoor gu nekk seen biir xol ngir iñaan gu nekk seen biir xol ba tax ñuy wax ak jëf yu mel noonu ngir yàqal seen doomu aadama seen moroom doomu aadama lépp teg ko ci bakkan lépp teg ko ci alalu àdduna lépp teg ko ci bànneex ndax nit ki bokk na ci liy gën a neexal dundam kat mu xam ni lépp lu am rek mi ngi bàyyi ko su ma tabaaraka wa taala yàlla lépp lu am rek moo ko dogal xatta musiba lu mu mën a doon wa ma asaabakum musiba fii ma kasabat aydikum wa ma asabakum min ni'matin fa min lépp lu ngeen am ci xéewal xam ne ni mi ngi bàyyi ko fa yàlla subhaanahu wa taala amul benn doomu aadama boo xam ne yaa yor loola ca loxo amut ku ci nekk rek li nga yor yàlla subhaanahu wa taala moo la ko jox kon nag nañuy gën a wakkilu ci yàlla tawakkal ala allah ne ko yàlla subhaanahu wa taala waxee yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ngay wakkil ci moom taala kon nag nañ koy ñaan di ñaan di ko ñaan ci guddi yi di toroxlu di def tawassul ci yu baax yi ñuy def sarax yi ñuy def di def tawasul di def ak jégal ni ko Serigne Salih Mbacke daan waxee julli yi ñu julli ci def tawassul ngir tuubal ko ndax waxtu bu ci nekk day war nañuy tuub wastaghfiruhu ngeen koy jéggalu te it innahu kaana ghafaara te yàlla kat ko bari jéggal la koo xam ne njéggalam gi bari na lool te ngi xaar ko ko jéggalu nañ koy jéggalu te jàmm bi lu mu mën a def lu mu bari bari bari bu sukkee si kanam subhanahu wa taala toroxlu jéggalu yàlla yàlla subhanahu wa mën na koo jéggal bàkkaar ñu yëpp waaye nag du sax du si yam fa ulaayika yubaddilu llahu sayyiaatihim xasanaat wa kaana allahu gafuran rahima tuub gi ngay tuub toog sa kanam subhanahu wa taala ci yàlla say bàkkaar tuub gi bu sellee nga jëf-jëf joo xam ne day weccee la nga defoon ci ñaawte yàlla subhaana taala nee na dina la jéggal ba noppi waaye ñaawteef ya nga defoon sax daf koy wëlbati def ko ay xasanaat def ko ay yiw wa kaana allahu gafuran rahima mu teg si kañ boppam ne yàlla kat ku mën a jéggal la la te ku bëri yërmande la kon buur bu mel noonu nga xam ne mi ngi xaar ku ko ñaan mu may la mi ngi xaar ku ko jéggal mu jéggal la mi ngi xaar ko woo muuy la nan la jaam di yaa ñàkkee yaakaar ci yàlla subhaana wa taala lu mu tar tar tar tar tar tar buñ ñàkk yàlla subhaanahu wa taala saxaaba yi demoon nañ ba nga xamee ni métti woon na ci ñoom lool bañ ne mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla di ñëw waaye ala inna nasrullahi qarib ndax yàlla dina teg nit ba dina teg nit coono teg ko ay nattu wala yumaxisu allahu alladina amanu minkum yàlla dafay dafay natt julli ñi na xool ndax la ñu wax ñoom dëgg la si ñoom wax gëm gi ñu gëm yàlla wàkkeelu gi ñu wàkkeelu ci moom jël seen lépp jox ko ndax loolu wér na dafa am loo xam ne loolu dafa am lu ko war a dëkkal mooy ndax yow lii nga wax tey lu wér la lu wóor la su fekkee ni dëggu na ba nga xamee ni amul benn sikk sàkka yàlla subhaanahu wa taala mbooleem luy xewal rek nee leen ko jox moo tax yàlla naan wala tahinu wala tahzanu wa antumul na in kuntum muminin bu leen doylu mukk bu leen jàq mukk yéenay nekk ca kaw mukk li feeg yéene li feeg yéene ngi ànd gëm ngeen gëm si moom te mu dëggu ci yéen barakallahu kon nag ni ñuy gën a wàkkiilu ci moom gën a toroxlu ci moom di ko ñaan te di ko wóolu te bàyyi koog sunu lépp bàyyi koog sunu lépp ndax kat. wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla moo leen sàkk ak mboolum li ngeen def rek suma taala xam na ko te moo ko bind kon nag na ngeen doxee ca nam leen ko waxee waaye tamit na ngeen jël seen lépp nag bàyyi kook ak moom tey nag ñu fas yéene waxtaane tom boo xam ne yàgg na ci jamono lool te mu nekk tom boo xam ne andi na ay wuute yu bari am na ay xeex andi na ay Euh, bañante andi na lu ne andi na ko ci doomu aadama ci ba yàlla bindee doomu aadama ba suñu jamono jee tey tey yi ñu tuddee ko le fanatisme religieux fanatisme religieux suñ ko mënee définir mooy nit ko maanaam mën nañ ne ak par parparloo ci xalaat par parparloo ci diine parparloo ci doctrine parparloo ci ay doomu aadama yoo xam ne ci ngeen jëlee seenub njàng lu ci nekk rek am na doomu aadama yoo xam ne jamono ju ci nekk ñi ngi jàppeen jàppeen woo xam ne andi na parparloo goo xam ne sox ndax par parlo nit ki sañ naa bokk fenn kenn terewu ko ko sañ naa euh, jokk fenn kenn terewu ko waaye nag su boobaa li kañ lay gaañ mooy bis bu jàppee ni moom rek moo nekk ci dëgg keneen la mu nekk baaxut keneen la mu nekk baaxut keneen la mu nekk amul solo yàlla subhaana taala gërëmu ko su boobaa nag fitna mi ngi commencé am moo tax islaam diine la joo xam ne dafa ñëw andi jàmm andi cofeel ci diggante doomu aadama yi waaye tamit bi yàlla subhaana taala bindee ñëpp wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dalika la ayatan lil aalamin dafa bokk ci kéemtaani yàlla yi mu bind doomu aadama yi ñu wuute ci ci jëmm wuute ci làmmiñ nit ñi dañoo wuute wuute gu yaatu ci lépp loolu sunnatullahi fi ard la dafa bokk ci ni yàlla tëralee suuf si nit ñi di wuute loolu mënta ñàkk nit ñi faw ñuy wuute ci gisin faaw ñuy wuute si pas-pas faaw ñuy wuute si jàppin faaw ñuy wuute ci gëm-gëm faaw ñuy wuute ci xalaat mënut a ñàkk walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxidatan wala yazaaluuna muxtalifin illa man rahima rabbuk wa yàlla subhaana moom la soob bind doomu aadama ñu am ak wuute goo xam ne nekk na ci seen biir ndax fi mu toll nii dangay ngay ñëw xatta ci biir lislaam am na ci ñoo xam ne ñu ngi tuddee seen bopp sunnit ñii si tuddee seen bopp shian ñii tuddee seen bopp mu'tazila ñii si tuddee seen bopp almatrudiya ñii achaira dégg nga da ngay ñëw bu ñëwee ci euh, tasawuf nga gis tey fii ci biir Sénégal boo dëggee ci Sénégal da ngay gis tey ñii ñu ngi woote woo murit ñii ñi ngi woote woo tijaan ñii ñi ngi woote ya ñii chaaziliya ku ci nekk yaa ngi am fooy tànqee ngir lan ngir kat looloo la doy ngir loolu kat moom moo doy ba xatta ci biir murit yooya wala ci biir tijaan yooyu day gis ñoo xam ne kër diw maanaam ñoom seenu kilifa rek lañ doyloo ñoom lañ xool ñii nii waa kër sëñ Fallou di nga gis ñii waa kër sëñ Ablaat boo demee si ñeen ñi nga waa kër sañ Mbay da gis ne ñu ne waa kër keneen ku ci nekk rek yéen a bokk fa ngeen di kenn la waaye naanu waaye fi mu toll nii dafa wuute. ku ci nekk la nga jàppo doy na la sëkk doy na la sëkk ba yaa nga cay nekk waxtu wu ci nekk waaye nag loolu kenn terewu ko. lan cey tere kay mooy nga jàpp ne yow rek yee moo baax li nga si li nga nekk mu baax sa kilifa moo baax kilifa keneen ci ay caaxaan nekk bu loolu bu amee rek par parlo mi ngi am te loolu mën naa andi fitna. doomu aadama bi bi ñu yàlla andee ci kaw suuf wàcce ñu li ko war mooy mu xam li ko fi andi ak li nga xam ne ki ko fi andi li ko fi andi ak fan la jëm nit ki faw muy poser question yooyu kan moo ko fi andi. muy yàlla subhaanahu wa taala lan moo ko fi andi muy jaamu ko wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabuduun sàkkuma nit ak jinne lu ñu may jaamu walladi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tuubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yàlla subhaanahu wa taala moo leen sàkk wàcc leen si kaw suuf ngir ngeen yéwénal ak dund ci kaw suuf te waxtu wu ci nekk nag ngeen di dellu ci moom ci di ko jéggalu ci ak toroxlu ci moom kon moom moom moo ñu andi ci kaw suuf mu xam ni kon fii nii du dëkkuwaay tuddee mu tuddee ko kër goo xam ne kër guy jeex ba lépp lu fi nekk sax dangay gis ni da koy teg ci ak jeex danaan innama mathalu kama anzalna min as-samaa'i faxtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyaah mataal xeet du tuddee ko mataal xeet dunia tuddee ko mbir moo xam ne maanaam da ngeen fii nekk waaye euh, nit ki am na juddu na màgg na bis dana xëy mu faatu maraaxil ya fa nekk yëpp sama temps la bi ne ko nit ki xalaxakum min daaf summa jaala min daafin xuwa summa jaala min baadi xuwatin daafa wa shayba yaxluqu maa yashaa wa huwa al alimu al qadir yàlla subhanahu wa taala daf leen a bind ci néew doole jox leen kattan. ak ju indiwàll ci néew doole waman waman xalaat naa nu amir waman nu amir waman nu amir nu nakkisu fil xalqi afala yaqiluuna doomu aadama lu muy gën a dund ci kaw suuf lu muy gën di dem kattanam di gën di wàññeeku dina dem ba déggam wàññeeku lool dina dem ba ay gisam wàññeeku lool dina ba kattan gam yore woon dootu ko yore nu nakkisu fil xalqi afala yaalamuun kon nga xam ne fii mu xam fii nekk li fi nekk mooy jaamu yàlla jaamu yàlla fi nekk te it bu mu fàtte ni am na fu mu jëm mu yowmal xiyam wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana ilayk nga xam ne fii ñëw na fi pour dund war na dund dëkk ci kër war na bu yàlla daganal ci mu am soxna daganal ci mu am dëkkuwaay daganal ci moom mbooleem tayibaat yi nga xam ne yàlla subhaana taala andi na ko mu bànneexu si waaye na ci boobaa bu mu fàtte ni mukk ne kat fii fii la ñuy waajale ngir yóbbu ëllëg ba tax loola ëllëg yawmal xiyaam moom mooy kër gi nga xam ne mooy daaru qaraar kërug saxuwaay gi nga xam ne lu waay jëfoon fii ëllëg dañ la koy fay foofa su ko defee su xamee loola kon xam ni kat moom dafay ñëw dëkk fii te dafa jóge ala kulli xaal dana fi jóge tël fee nee la fa yóbbu rek loolu loolu la fay fekk su boobaa nag yàlla subhaanahu wa taala li mu wax ne ci làmmiñ yonent sallallahu alayhi wa sallam inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wa ajsaamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yàlla subhaanahu wa taala bind na leen waaye xoolul seen seen i jëmm xoolul seen i melokaan la mu xool mooy xool ba kon xoolu xoolu waaye suñu borom negam nun kat suñu jëmm ji yi nga xam ne moom lanu am balaa nuy génn dañu koy nettoyé maanaam faw ñu defar sunu jëmm ji sol yëre yu la laal lu neex xool fi li li ñuy li xool fi ñuy jaar xool daal la sol dañ nga xam ne nit ñi la ñuy xool seen bët moom dafay set wicci ba ku la gis moom naw la waaye naka xoolu waaye yàlla bi nga xam ne mooy xool ba te yàlla wax na nee na yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim ëllëg yowm alqiyaam amul lenn lu fay jëriñ lu dul ku andil suñu borom taala xol bu sell xol boo xam ne mucc na ci bépp ayib man xacha arrahmana bilxaybi wa jaa bi qalbin munibin koo xam ne ragal na yàlla subhanahu wa taala di ko bàyyi xel waaye tamit àndaale xol boo xam ne waxtu wu ci nekk mi ngay dellu fa suñu borom tabaraka wa taala kon xol xol xooluwaay yàlla boobu noonu nit ki war na see war na see jug ci dindi ci lépp loo xam ne xeetu rëy la inna allah la yuhibbul mutakabbirin yàlla subhanahu wa taala bëggul ñi nga xam ne rëy la ñi way rëy yàlla subhanahu wa taala bëggu leen te yéen sallallahu alayhi wa sallam nee na benn pepp rëy bu nekk ci sa xol du dugg du dugg aljana waaye benn waay ne ko ah waaye kat day nun dañuy bëgg sol yére yu rafet ak ay dàll yu rafet mu ne loolu du rëy rëy mooy nga xeeb doomu aadama yi te képp ku la wax dëgg nga gis sa bopp nee na loolu mooy ak rëy yàlla subhaanahu wa taala dañ naan rëy mboolem xeetu jikko yi day yàq pas-pasu day yàq jëfi jëfi doomu aadama yi waaye rëy day yàq pas-pas doomu aadama ndax rëy kenn moo ko jagoo muy yàlla subhaanahu wa taala bañ na ko bu dafa tuddee boppam al mutakabbir ndax ki am lépp mën lépp nekk fépp lépp nekk ci loxom bu ko neexee rëy te def lu ko neex te kenn du ko laaj lu tax nga def ko kooku rek moom moo war a rëy kon nit ki warul rëy ci dara ndax lu mu doon rek àndaalewu ko ab judd àndaalewu ko alal àndaalewu ko taar wi suñu borom taala moo ko ko jox dégg nga lu mu mën a doon mu am poste de responsabilité loola moom nekkul lu mu jox boppam waaye lu ko suñu borom taala jox la kon lu ca lu mu ca teg tànkam ngir rëy rek wala ngir xeeb doomu e rek soobaa mi ngi dugg ci rëy te yàlla subhaana taala loolu du ko gërëm mu génne ci xolam lépp luy iñaan yàlla subhaana wa taala da gis ni ci suratul falaq mi ngi naan wa min charri xaasidin ida xasad bokk na ci muslim yi muslim mooy añaan ba añaanam feeñ nit ki mën naa añaan maanaam garab gi sax ci xolam waaye amagul ay bànqaas amagul lu ñu tuddee ay fruits mën na gis nit rek dara naq euh, gis ko xéewal ko yàlla def mu soxore ko waaye soxor ga ma nga ca xol ba waaye génnewu ko waxut defut kooku moom mi ngi yem ci degré xaasit moom añaan na waaye nag bi gën a doy waar mooy ki nga xam ne moom dem na ba añaan gi mënatu koo téye ba mu jug di wax baa muy def ci ci loola su boobaa kooku ku danger la te kooku yàlla subhaanahu wa taala mus na ci ci alquranul karim ci yonent sallam kon da ngay gis ni tamit ci wàllu googa yonent la yonent salaam dafay wax ni wa iyaakum wal xasad na ngeen wattandiku añaan fa inna al xasada ndax añaan day yakulu al xasanaati kama takulu naaru al xataba aw qaala al usba wattandiku leen iñaan ndax iñaan dafay lekk si jëf yu baax di ko lekk di ko lekk di ko lekk am jax takk ni safara di lekk matt mi buñ ko buñ ko ko xàmbee wala safara ni muy lekkee aw ñaxu wow kon nit ki war na xeex boppam ba iñaan ba gërëm lépp loo xam ne gis na ni yàlla ko subhaana taala def na ko ci jaamam mu loolu neex ko ba mu jàpp ko ba mu ba mu gërëm loola waaye tamit mu wattandiku ñàkk wax dëgg tey loolu ay jikko la yoo xam nit ki war nay xool boppam ba génn ci moom yooya ndax dafa nekk yoo xam ne li feeg mi ngi am ci xolam nit ki mënul jëf-jëf yoo xam ne yàlla subhaana taala dina ko nangu it bokk na ci mission yonent yi mooy allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumat ila annuur walladina kafaru awliyaahum altaaxut yuxrijuuna min annuur ila alzulumat ulaika ashaabu naar fiha xaalidun yàlla mooy kilifa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm daf leen di génne ci ay lëndëm lëndëm lëndëm yi nga xam ne ci lañ nekk lëndëm lëndëmu xol iñaan rëy soxor naw sa jëf yëg sa bopp ay lëndëm lëndëm yu nekk si xol yoo xam ne li tey mi ngi nekk ci biir xol doomu aadama nit ki néewaana mu jëf-jëf joo xam ne yàlla subhaanahu wa taala dina ko nangu mu tax yàlla ne man xasha rahmaana bil xaybi wa jaa bi qalbin munib yawma laa yanfau maalun wa laa banuuna illaa man ataa allaha bi qalbin salimin kon nag xol bu mucc si xol bu ci xol bu tër mucc ci mbooleem feebar yooyu nga xam ne boo nekk ci xolu doomu aadama nekk fa ba tax doomu aadama bi du mën a yëg suñu borom du mën a nit du mën a jaamu jaamu ko yàlla nit ki war na ko doy sëkk sëkk sëkk mu nekk ca foo mën a bokk kuréel boo mën a bokk ci kuréelu diine yi kuréel boo mën a bokk ci kuréelu ci yeneen yoo xam ne ñu ngi woote woo ci wàllu diine lu mu mën a doon rek nit ki la ko war bu ca nekkee mooy mu fexe ba ay jikkoom rafet lool ndax yàlla moo ne yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla subhana wa taala moo leen bind ngeen nekk ay nation yu wuute ak ay tribu yu wuute ku ci nekk am nga foo bokk am nga xeet woo bokk waaye nag loolu yëpp da ko def leen li taaarafu ngir ngeen xamante ngir cofel dugg nekk seen biir waaye na ngeen xam ne nag yéen ñii ñëpp mboolem ak seen wuute gi ni mu mel na ngeen xam ne ka gën fa yàlla subhaanahu wa taala mooy ki gën ci yéen te ki gën ci noonu kat mooy ki gën a ragal yàlla subhaanahu wa taala ki ëpp ki gën a rafet jikko kon diine la mu woote leen rek la muy jikko ju rafet laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibba li nafsihi nit ki gëmam yàlla du mat sëkk lu dul bu xoolee xolam bi gis ni kat man kat li ma bëggal sama bopp laa bëggal kii bokk min xusni islaam al tarkuhu ma laa yaanihi bokk na lii rafetal islaam doomu aadama yi lépp loo xam ne yoonam nekku ca mu génn ca daa maa yaribu ko ilaa maa la yaribu ko li nga nekk sa mu nekk ay sikki sàkk ci ceew ba ko te li nga xam ne am loo ci benn sikki sàkk mu doy la doy sa xol doy sa xel nga nekk ca kon yooyu ay jikko la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko jàngal yonent bi sallallahu alayhi ko mu nekk aw yoon woo xam ne ci la ñu war a jaar ngir suñu dunduk yéwén ku ci nekk tal boppam yaa ayyuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla ida htadaytum ila allahi marjiukum jamian fa yunabbikum ma kuntum taamaluun ey eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen na ngeen na leen seen bopp doy na seen bopp doy alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ki nga xam ne moom moo sànku sànkoom bi du leen lor mukk li fekk yéen ngi ci li yàlla subhaanahu wa taala nekk muy siraatal mustaqim te na ngeen xam ne yéen kat yéen ñi ñëpp lu ngeen wuute wuute lu ngeen bëri bari ëllëg yoo xam ne ñëpp ci yàlla ngeen di delluwaat te buñ delloo ci yàlla fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun lu waaye defoon rek yàlla subhaanahu wa taala dina ko wax nit ki kon war nay defar pas-pasam defar ay jikkoom ba mu rafet ba nga xam ni xoolam bi xooluwaay waaye muy xool ba yàlla subhanahu wa taala gërëm na ko yàlla subhanahu wa taala gërëm na ko ba nga xam ne amul lenn lu ci nekk loo xam ne rek sikk la lenn lu sikk rek nekku ca su boobaa nag jikkoom rafet na jëfam rafet na képp ku mu dundal di dund tey dund bu rafet doonte sax bokku leen pas-pas doonte bokku leen diine nit ki tamit war nay nangu ne sunnatullahi fil ard mooy yàlla yoon wi teg ci kaw suuf dafa dafa dafa permettre maanaam loolu dafa andi nit ñi ci wuute ni ñu ko waxee léegi mun nit ñi mënuñoo ñàkk a bañ a wuute. ñu bañ a bañ a wuute fi mu toll nii biir senegal gi gis rek nga xam ne ñun ñii daanaka. 14 millions yi wala boog 17 millions yi nekk da ngay gis ni façon làkk wu ne am na ci wolof man manding séeréer pël ku ci nekk am nga ci te gis nga waxtaan alsinatakum wa alwaanikum bu bu neexoon su borom tabaaraka wa ñëpp di waxandoo wolof bu nekk bu ko neexoon ñëpp di waxandoo séeréer waaye wuute am na ci ak làmmiñ ku si nekk am la làmmiñ goo xam ne am te làkk woo xam ne ci ngay waxee ci ngay mën a dégg ak ci ngeen mën a déggoo yàlla subhaanahu wa laa moo ko def waaye da ngay gis ni même ñi nga xam ne ñoo bokk sax même li ñu li ñu jàpp maanaam tey fi mu toll am na si ñoo xam ne ñoo bokk même benn sëriñ da ngay gis seenu jàppin day wuute. ñoo bokk benn sëriñ waaye seenu jàppin dafay wuute kee jàppee nii kee jàppee nii kee gën a dëgër kee gën a woyof kee nekk si diggante bi kee moom jàppul dara wut mun wuute moom maanaam mënut a ñàkk mukk mukk mukk ci kër àdduna moo tax nag nit ki. waruñoo waruñoo exiger kenn mu gëm li nga gëm par force déedéet loolu baaxul nit ku ci nekk gëmal li nga gëm la nga xam ni tamit keneen moom la gëm nga bàyyi ko euh, ci mu nekk kon nu taxatu ci nodd kon mbokk yi ñu xam ni kon dafa sob yàlla subhanahu wa taala doomu aadama yi wuute dan yàlla subhaana taala nee na walaw shaa rabbuka la aamana man fi l ardi kulluhum jamian bu sooboon yàlla subhaana taala mbooleem ñi nekk ci kaw suuf ñëpp dañuy boolendoo am na nu même benn gëm la ñuy gëm moo tax ci diine mu ne laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu min al ghayy diine lépp leer na bu kenn forcé kenn ci mu gëm afa anta tukrihu naas xata yakun muminin ndax yow da nga leen di forcé ba ñu gëm déedéet wama kaana nafsin an tumina illa bi idnillah gëm moom nit ki nekk daf koy neex bu gëm déedéet gëm nit ku gëm rek si coobare su ma taala ci nga gëmee wama kaana nafsin an tumina illa bi idnillah ku gëm rek dafa soob suñu borom nga gëm waaye déedéet nekku daf daf laa neex rek nga gëm déedéet kon nag nit ki war ku ci ne war na nekk ca la nga nekk mu doy la sëkk nga jàpp ko da ca di ci woote di ci wax mu sañ ngaa taxaw ne man li ma nekk nii moo gën lépp sañ nga ko wax sañ nga caa doxe sañ nga caa wax waaye nag ci boobaa bul tax bul bul forcer ñeneen ñi wala nga ne li ngeen nekk baaxul li ngeen nekk baaxul kum mën a doon na ku ko mën a wax rek dugg na ci tooñ te yàlla subhana taala ci alquran karim mi ngi wax ne julli ñi ne leen wala tasubbu alladina yad'una min dunillah فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون ñii wootee wu lu dul yàlla subhaanahu wa taala bu leen bu leen ŋàññi loolu ca ca ca lañ nekk bu ko ŋàññi ndax kiy waare sañul taxaw mukk fekk aw xeet di jaam leneen da ca nekk ñu gëm ko jàpp ko nga taxaw ŋàññi la ñu nekk yàlla subhaanahu wa taala diggalu lu ko diggoon la ko ndax boo ko defee ñoom dañuy ñu ñu ñu saaga li nga nekk wala ju bokk ñu ŋàññ ci li nga nekk te yàlla nee na kadalika zayanna li kulli ummatin amalahum ku ci nekk rek la nga ku ci nekk la ngay woote woo yàlla subhanahu wa taala moo la ko taaral moo tax yàlla ne kullu xisbin bi ma ladayhim farixuuna kuréel bu nekk la nga nekk doy na la sëkk la nga nekk kontaan nga si la nga nekk doy na la yaa nga ca yaa nga cay naan qad alima kullu unaasin mashrabahum ku ci nekk fa ngay naanee doy na la sëkk waaye nag su boobaa bul jéggi inna allah la yuhibbu almu'tadin wala taatadu bu leen tooñ li ngeen nekk bu ci bu leen ci joggi di ci tooñ ñeneen yaa nga ca doy na la yaa ngi cay mandi mi ngi lay neex dal na sa xol dal na sa xel téel jàppal ba mu dëgër bu ci kenn génne waaye nag fa ngay tàmbalee nag di tooñ mooy bis ba nga taxawee ne keneen ku nekk ci li ma nekk ci ay caaxaan nga nekk su boobaa yow yaa ngi dugg ci ak tooñ goo xam ne yàlla subhaanahu wa taala digalu la ko yàlla ko ndax kat yàlla dafa ne wax la ne qul kullun ya'malu ala shaakilatihi fa rabbukum a'lamu man huwa ahda sabila ku ci nekk na nga nekk ca la nekk nekk ca yàlla subhanahu wa taala moom moo gën a xam ku jub inna rabbaka huwa bi man dalla an sabilihi wa huwa aalam bi man ittada yàlla subhanahu wa taala moo gën a xam ku tegu ci yoon wi ak koo xam ne dafa jàdd ci ñal wi moo tax mu ne fala tuzakku anfusakum huwa aalam bi man ittaqa bu leen bu kenn taxaw ne man kat man damaa baax damaa ñii da déedéet yàlla subhanahu wa taala moom moo gën a xam ku ragal yàlla ku gën a jege ku gën a rafet jikko yàlla subhaana taala moo gën a xam kon nit ku ci nekk kon la nga nekk nekk ca su fekkee nag da ngaa gis sa moroom beneen moroom mu nekk ci loo xam ne loolu yàlla subhaana taala gërëmu ko yàlla tegal na la ab règle udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati al xasana wa jaadilu billati hiya ahsan boo koy woo na ànd ak xikma te xikma nag in yuti al xikmatu min allah yuti al xikmata man yacha yàlla subhaanahu wa doo koy jox ku ko soob moo tax ku nekkul ku jug rek war a wax ci diine diine ña ca war a wax du sama kalaas gi ña ca war a wax mooy ñi nga xam ni kat wóor nañu ñii kat am nañ am nañ xam-xam bu xam bu sell lool xam-xam bu wóor lool te bu ñuy wax ña nga cay bàyyi xel yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ci bàyyi xel yàlla du ñuy wax mukk di ca di ca di ca leble di ca fay bor di sa tooñ di sa tiisante di sa fayoo duñ ci def dara waaye bu ñuy woo dañuy wootee li wajhillaahi subhanahu wa taala ñooñ ñoo war a wax ci dina xam-xam ba sell na te bu ñuy wax saabu bu ñuy wax wax saa bu ñuy waxee njariñ am nit koo xam ne nag saa waxee wax bi am njëriñ nañ ko may mu wax waaye koo xam ne saa waxee wax ji am andi ay jafe-jafe andi ay féewaloo kookat la warkat mooy mu noppi te am na ci kuréel yëpp bu duggee ci ci tarixa yi am na fa bu duggee ci yeneen association yi am na fa am na ci ñoo xam ne am nañ amee nañ xam-xam bu sell di ci waxee ngir yàlla da ca waxee xam-xam boo xam ne lépp lu ñu waxee rek am na cëslaay am na fuñ ko teg te ku ñu dégg leen waaye am na ci ñoo xam ne ñoom bakkan la ñuy waxee am na ci ñoo xam ne bànneex la ñuy waxee am na ci ñoo xam ne àdduna tax ñuy wax am na ci ñoo xam ne lu ñu lekk loo tax ñuy wax ki nga xam ne nag loolu yëpp mooy tax muy wax bu ko ci gisatul lu ne mën naa wax lu ne mën naa wax loo xam ne mën naa gañ am pénc moo tax yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana soo koy woo nit ki boo koy woo da nga koy woo ci xikma ak waare wu rafet rafet doo ñëw fekk ci lim nekk nga ko ci ŋàññi déedéet waaye yow wan ko li nga nekk wan ko li nga nekk ba bu fekkee ne li nga nekk convaincre na ko buy buy ñëw fay la alhamdu su fekkee ni convaincre ko bu bul utiliser beneen méthode méthode boo xam ne méthode bu métti la waaw yàlla subhaana taala wax na ko yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ko wa ma arsalnaaka alayhim xafida yónni wuñ la ci ñoom ngir nga mere ku ku ku ku gëmul nga mere ko wa ma ala rasul illa al balaaxul mubin ndawal yàlla bi la ko war képp mooy mu jotali jotali la ko la ko yàlla yónni mu jotale loola la ko yàlla yónni mu jotale ko jotaleen wu bir bu rafet waaye nag bu mu dugg nag ci ak tooñ war xooñu ko ma yor aw yat ku gëmul rek mu ne la yow baaxoo déedéet moo tax yàlla ne jëf leen wa qul yamalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaada fa yunabbiukum maa kuntum taamaluun jëf leen jëf leen yàlla subhaanahu wa taala gis na seen jëf ak yonentam te lépp lu ngeen jëf ëllëg yawmal qiyaam dina leen ko dina leen ko tegal li ngeen gis ko wa kullu insanin alzamnahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu manshura iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba ku ci nekk yaa ngi am téere boo xam ne yàlla subhaana taala gàll na ko ci yow jëf joo jëf ëllëg di ñëw yàlla sa téere ngi nii lépp lu ci nekk yaa ko ci jàngal ci sa téere kon man lijjanti ba sama téere la ma fay fekk mu nekk yiw ah loolu day doy war na maa doy sëkk sëkk sëkk ba nga xam ne sama téere bu ma ko ubbee dama fekk loo xam ne lu ñaaw la kon ñu xam ne tamit ne jamono jii ñuy dund ak jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan dund yaa na ay siècle siècle yoo xam ne dox na fi yoo xam ne gis nga da xam da xool si biir alquranu karim yàlla subhaanahu wa taala buy joxe misaal da koy jox li dëppoonoog seen jamono boo xoolee eh, ci wàllu waruwaay ci alquran karim day gis ni dafay wax ci eh, mbaam baa wax fas ndax jamono yooyu yooyu fa amoon yoo la joxoon misaal waaye tey nañu xool alxuraan karim tey bu doon wàcc tey ndax day jëfandikoo misaal yooyu déedéet mais day jëfandikoo li ñu xam lu mel ni ay avion lay jëfandikoo wala ay jet privé lay jëfandikoo wala ay oto wala ay xeet yooyu lay jëfandikoo xataa da gis ni aljanna su ko daan wasfu ñi nga xam ne moom mooy jullit ñi jannatin tajri min anhaar min maa in asal min musaffa asal laban yooyu lay wax soow lay wax lay jëfandikoo ndox mu laab lem day jëfandikoo sàngara dangay gis ne jamono yi nga xam ne alxuraan mi ngi wàcc liñ gënoon a liñ li fa gënoon a raar wala liñ gënoon a bëgg ci laan joxe misaal waaye jamono jiite ñu doon joxewaat misaal alxuraan kan doon wàcc da ngay gis ni buy joxe buy joxe ay misaal ci àjjana da ngay gis ni danaan bu ñuy sol sol yi gën a yëre yi nga xam moo gën a naan ay jesneer la ñuy sol wala boog sol ay yëre yi gën a wala boog yor ay ay château dafa dawal ay avion yoo xam ne ndax nit ñi ci nekk contexte ba lam laaj la leen jox yéen moo tax yàlla ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayna lahum yonent bu si nekk rek yàlla daf laa yónni ci contexte mu la yónnee lisaanu mu mën na nekk nit xeet wu ci nekk ak làmmiñ maanaam wolof mu yónni ak wolof séeréer mu yónni leen ak séeréer euh, arabe mu yónni ak arabe euh, ñeneen làkk wu si nekk waaye fi ñu toll nii Yusuf al-Qaradawi rahimahullahu alayhi borom xam-xam wala nee na kon euh, lisaanu xawm yi mën nañ ko jëfandikoo sax ci contexte bi nga xam ne moom la yonent bi di dund mboolem la fa nekkoon. ci ay eh, jëflante ci ci loo xam ne nit ñi ñi ñi maanaam ñi ngi dund ak moom te tey mu jege leen ci lay joxe exemple ndax la muy wax mu gën a leer waaye te bu fekkoon ni alxuraanu karim dafa am yoo xam ne nit ki déggin ba mu ca amoon ak jamono ji déggin mën naa wuute moo tax déggin woowa nit ñi waruñu ñu ancré wu ci jamono yam sallallahu alayhi ne la fa nekkoon rek moom lañu war a appliqué waat xarfan bi xarfin à la lettre ci jamono ji loolu mënta nekk loolu mën mënul nekk ndax contexte bi laaj la laaju ko am na si yoo xam ne maanaam jamono laajatu ko te charia dafa am lu ñuy tuddee muruna muruna mooy flexibilité boo xam ne ça lui permet que à chaque fois jamono ju ci nekk ña fay dund da ngay gis ni charia day fi at lu tuddee al ijtihaadaat dégg nga al istihsaan dafay am ci kii xam ne Euh, euh, c'est-à-dire ce qui est ce qui est bien ñu ñu xool ne lii kat baax na wala boog ñu gis ni masalih mursala l'intérêt goo xam ne gis nañu kat arrange doomu aadama mi koy andi day gis ni ñu ñu ko andi alors foofu dafay am yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne dañ ko andi ci euh, borom xam-xam yi dañ koy sukkandikoo souvent ngir yéwénal doomu aadama yi ci seen dundin texte yi nga xam ne souvent. wala contexte situation am na wala cas am na gisuñu ko ci alquran texte bu leer naññ gisuñu ko ci xadis texte bu leer naññ boroom xam-xam yi gis seen seen mbo seen ijmaa ulama mooy consensus bi nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo mag ci gëstu ci wàllu alquran karim ba peeg ko ah, xam ilmu xadis ba peeg ko ñu gis ni kat amuñu si ak gisuñu si fenn fuñ ci dëppoowee ñu jóge ci loolu dem analogie analogie mooy leen mooy qiyaas qiyaas am na texte boo xam ne amoon na maanaam tey ñu lu mel ni sàngara dafa xaram est-ce que tey xeet beneen xeet boo xam ne li tax ñu araamal sàngara mooy ndax day tax nit ki màndi ñu ne kon est-ce que kon tey beneen naan boo xam ne nit ki mi ngi koy naan bu koy màndiloo te du sàngara est-ce que kon dañ koy dugal ci cadre xaram nga xam ne loolu analogie la boroom xam-xam teg ci di ci di ci andi pour lan pour jéem a contextualiser les faits. yi nga xam ne dafay am ci société bi moo tax diine nekkul lu figé benn place déedéet charia boog laa bëgg wax charia nekkul lu figé benn place kon charia dafa nekk loo xam ne dafa am flexibilité boo xam ne dafay permettre doomu aadama yi jamono ju ci nekk rek ahkaam yi mboolem loo xam ne ñëw na déen du tax ñu araamal lu dagan du tax ñu daganal lu xaraamal waaye lum ci mën a doon rek loo xam ne ñëw na ci jamono rek am na borom xam-xam yi nu ñu ko nu ñu ko jàngalee nu ñu ko mingalee ak charia ba jullit mi mën ca dund dund woo xam ne du gaañ dara ci pas-pasam du gaañ dara ci diineem yooyu nag ki nga xam ne xamu ko bëgg a ñëw xëy xëy rek bëgg woote ci diine bëgg a woote bëgg a firi alquran karim bëgg a firi xadis te yow sa xam-xam bënnut da ngay andi ay erreur doomu aadama bala ngay wax ci diine dafa am loo xam ne faw nga peg ko faw nga xam ko mu dajale ci yow ci yenn xam-xam yi nga xam ne da lay wóor lu mu mën a doon dinga ci ànd ak teey ànd ci ak dal te kat bul waxee ak xol bul waxee ak xol bul waxee ak mer waxeel ci ak xam-xam waxeel ci mën a kër doomu aadama yi mais pas ngay waxee ci mer waxee ci parparloo waxee ci euh, non non loolu baaxut yooyu yooyu sama yàlla subhaanahu wa taala yooyu daf koo daf koo tere ndax bokk na ci li nga xam ne doo ko tere mooy albaada li tax mu araamal carte ak sàngaraak dafay andi albaada bañante seen biir te soo xoolee kat aljana li tax mu neex nit ñi mën caa dund yàlla dafa ne wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururi mutaqabilin lan nekk can xol ci xeetu mbañeel ak noonoo ak soxorante yàlla subhaanahu wa taala daf koo rocc ci seen xol ñu nekk nag ay mbokk kon nit ki li fekk am na lu nekk seen xol pas-pas jàpp ko diine jàpp ko loolu du nekkatu diine leneen la may du diine waaye diine dafa ñëw ngir boole doomu aadama yi ñu ñu nekk ci benn buum waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci gumug yàlla gi te bu leen tàqalikoo mukk buñ demee bay tàqalikoo nekkatuñ ci diina ci leneen lañ nekk mais loolu nekkatul diine moo tax képp koo xam ne yaa ngi woote na nga wootee ngir yàlla te bañ ak teg ak parparloo bañ cee teg ak far bañ cee teg ak noonoo yalla nu yàlla gën ñoo gindi yàlla nu yàlla gën a leeral sunu xol te yàlla defal ñu mujj gu rafet wasalaamu aleykum wa rahmatullahi